Serigne Touba dafa am ay yu may gis xam man des fois damay topp seen cas dama lay topp yow damay topp Awa laaj démb dama gis bi ma la joxee affice bi Awa a partage l'affiche c'est normal et nit ñi damay gis dañuy wax ni Awa ak Banaya Awa ak Ndeye Ndiaye jubawuñu te man li may gis ci seen image li may gis ngeen koy doxale vous êtes vraiment des en fait loolu xocaa dafa jot ma leeral ko Awa sama deret la ndeysaan li muy def nii ci man la ko gisee Awa tuddul Banaya Awa Ina la tudd awa nekkul woon lëmbalkat aw fecc la xam bërët aw sóoru baa bu ko mënee suñu kër bànn yàlla ko mënee ndax fa la yaroo ñoo tëdd benn lal awa wili la may woowee wili moom man rek lay topp mais nag àdduna te xale la nit yi mais awa moom xam na man rek la bëgg ci àddina awa man rek la fan man rek lay topp <laughs> barke Serigne Bamba lu ma def mu def ko ñoom moo tax man nit ñi duma leen bàyyi xel ci loolu man chaque jour damay taxawal nag deret parce que man dama bëgg ayu Grégoire yi amoon na ay vidéo yoo xam ne awaak bànnaya ñu ngi woon vogue Grégoire sa ay des fois day des yeggaleel bànnaya wallaahi moom sénégalais yi xam nga rek tamit xamuñu te ah, dëgg yàlla xale la doog a door man tamit même chose ba ñëwee wax ji nag day bëri mais franchement amuñu benn problème parce que man aw sama rakk la ne am jàmburu yàlla yi laa amula ak kenn xaar ma yàlla du sama rakk ma fekk ko ci groupe ba mu yaatal ma ne xajal ma lool wax jeefi ne rek mais xajal na ma day lëmbal nii ma lëmbal ne des fois ñun ñaar ñëpp suñu yaram yi tàng ku ne lëmbal. waaw ko ko fi am. chocolat ak beurre Wally rek ko am ci àdduna. kii la ak beurre <laughs> mérité na ko mérité na ko laajte Diop bi dégg ngeen mbaay tarkalla allah donc leer na eh, ci nit yi nga xamante ni dañuy jàpp ni seen diggante dafa ñaaw. dara ñaaw ci ay yoo xam ne man bi ma gisee action bi waxuma dara awa mais dama ne damay ma wax ko est-ce que njëkkuma dugal sax affiche man. man dafa mel ni moom nga a dugal de. billaahi eh. aw borom baax la xale la mu nekk ci yoon ma koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko gudd fan ak wér gu yaram lépp lu mu ragal yàlla bu mu ko gis sama sang sama rakk la sama fils la sama lépp la sama gaay la nag après tout aw sama xarit la de. adduna <laughs> aw sama gaay la. barki alxuraanu karim aw aw musuma wax bànn yaa wili la may woowee. sama surnom wili kon léegi man wili laa lay wax. mais wili wili wili